Assalamualaikum mbokki taalibe yi ñu ngi fii ci kër Sëñ Saliou gi ci maanaam mbaar mi nga xamante ni mooy mbaar mu bees mi ci def macha allah mbaar mu ci ayib lol lol lool macha allah ñu koy siyaar di ko dégtal mbokki taalibe yëpp macha allah mu mucc ayib mbaar mu mucc ayib yàlla suñu borom def mu yegg ak jàmm te ñu muurloo ko barke borom Tuubaa te borom mbaar mii di sëñ Cheikh moom Sëñ Saliou yàgg fi ak waaw macha allah kër gi de mooy suñu kër ñun ñëpp yàgg nañ fee dugg suñu kër wéttal suñu kër fajuk aajo suñu maanaam suñu lépp rek waaw sëriñ Saliou Mbacke yàlla na boom dool yi ay ngërëmam ci sëriñ bi te taal suñu si barkeem faj suñu aajo barke bam dox aajo yi kon gis ngeen ko mbaar maa ngi nii ci biti macha allah macha allah macha allah macha allah Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Maşallah. Maşallah, maşallah. Langsung barang dia gelap jam, maşallah. Barmi sekesin sablon bakın, Kesin sablon nak ini. Barmi nak ini sebir. Maşallah, maşallah, maşallah, maşallah. macha allah macha allah mucc na ayib lool allah macha allah macha allah macha allah